Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay karo faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay karo parquet lépp am na ci biir Taïf Karo ay karo espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal clients yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matériel sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu

suñu rakk la borom kàddu la ñu leeral nañu nañ ñun waa Pikine yëpp pare nañ jël nañu Franc gome ko mais Pape Sarr nag Franc pour prouver à tout Franc a la yéen sóoraale mu gàllankoor lii mooy prouver xaaral ma lii mooy prouver preuve la Pape Sarr bi génne na preuve lii mooy prouver preuve lépp fii lay leeree fii lañ génne woon preuve boo ma seen champion d'Afrique si kaw ah. Serigne def door ci suuf Ibou Ndiaye Obeuly bi nga xamante ne ñoom ñaar ñoo bokk parcelle waaw Franc gisee Ibou Ndiaye Obeuly day mel ni xol bi la gis ah. mu ngi nii Ibou Ndiaye bërëb waay wala yelu ba si kaw door ci suuf demal caméra yi demal caméra yi ñu jël ko troisième défaite mu ngi nii fii lañ ko fii lañ ko éliminé éliminé drapeau chef de l'État rëg rëg rëg rëg ci ay douche rek la ko daanu ci cabinet ah. ci ay cabinet rek la ko daanu rëg rëg daan na ko ci ay almer daan na ko si jàkk daan na ko ci église ci ay cabinet douze. mais est ce que rek rek am na seen la. mu ngi nii waaw ba léegi ba léegi ci preuve bi. Ibou Ndiaye Obali. waaw ñoom ñaar ñoo bokk parcelle. waaw te kii rek la bañ. ah mu ngi nii. Ibou Ndiaye Obali. ah jëli yu gën a ñaaw fa fulaa lañ ko daan. ah déggoo li ma la gis que. la wax ci lii sa patron Modou Lo laaj ko ndax dem na champion d'Afrique. mais Fra mu mel ne da leen déranger. déranger wuñu. waa Pikine non déranger wuñu. lan lamiñ bi la langage bi. waroon na bëre kii Eumeu Sène. waaw tey bu noppi woon. waaw def def wane yar wane teggin mu bëre ak Eumeu Sène ñu nangu mu bëre ak. mais yéen bi ngeen di bëre ak Modou Lo noppiwul leen Ama Baldé. non non Ama noppee la ko jël. bi ñu toppee di topp Modou Lo depuis Mbour. waaw ma yóbbu Ama Mbour muy Pakala Matar Gueye. waaw est-ce jël na ko te pourtant bàyyi pël la Ama fete. daan ko téye parcelle daan fa ñetti mbër. Modou Lo bañ ko jël. bi Modou Lo bi Ama noppee la ko Modou Lo la dama ne la na bàyyi wax champion d'Afrique di wax waxu roi des arènes sa patron roi des arènes la te demul champion d'Afrique Tyson 2 moo ko fa jëlee. Tyson 2 moo ko fa jëlee moo ko fa jëlee. mais loolu gën a woo preuve de. non non ndax moom moom nee nañu laaj Ambroise Sarr. waaw lan la mu laaj Ambroise Sarr moom loolu nag demul. Ambroise Sarr na dem laaj Ambroise moo ko yor yor kii dama ne la rëgg-rëgg. demul woon MMA duñ ko convoqué nationale. moom Franc waaw. bu Reug Reug demul woon MMA duñ ko duñ ko convoqué. Eumeu Sène dañoo dañ koo gën a xam lamb. Eumeu Sène fan la jëm ko. Eumeu Sène daa ànd ak Yékini. waaw ànd ak Rock Mala. waaw ànd ak Moussa Gueye numéro 2. waaw benn Yékini moo fi indi médaille d'or. ñoom ñëpp ñu takkal leen ay médailles indi leen par équipe lañ ko éliminé yenn vidéo yu Eumeu Sène daan mu ngi nii suma téléphone lan moo tax ñoom duñ ko génne. moom nee na trophée bi gën a loolu la wax de. ah ah Franc noonu tuddee. man bëgguma tudd tur boobu. Ah. parce que tur boobu boo koy tudd da ngay toog ndogu xaru tabaski sax doo ko am. ah man bëtu fii yooyu may xoolee Firawuna laa koy xoolee. ah Firawuna la. Firawuna moo tuddee. Firawuna tuddee moo ko bët dama ne la bët yooyu may xoolee Firawuna parce que Firawuna ku soxor la woon. mais Doudou Sané taxaw na mooy leer naa am na seen moom Doudou Sané Franc nee na ñoom ñëpp ci ay mbapat la ñu sukkeekoo muy Doudou Sané muy Franc tey bu dee soxlawul bu dee soxlawul Doudou Sané waaw lan lay soxla li mu def nga Doudou Sané defagul noonu lan la def ci Franc lan la def lan la def ci Franc 13 combats 13 victoires kan la daan kan la mujjee daan kan la mujjee daan moo leen daan moo daan soxla moo daan Bombardier la mujjee daan ak kan bëri na jara moo daan Bébé Saloum waaw ah Eumeu Sène bëri na ak Balla Eumeu Sène jël na roi des arènes. waaw gis nañ leen tuuti. Eumeu Sène daan na Lac de Guiers. waaw. Eumeu Sène daan na nga. waaw Eumeu Sène daan na Mbaye Diouf. waaw. ah. waaw Eumeu Sène daan na Bombardier. waaw Eumeu kii lan la indi. Franc lan la indi. champion d'Afrique. ban champion d'Afrique. bi mu jël. ban lañ ban ban eh, moom nee daa jël individuel jël. moom kal moom kese moom moom la ñu takkal médaille dama ne la na gërëm rëg Reug Reug demul woon MMA kenn du ko convoqué Reug Reug moo doon yore capitaine u Sénégal waaw bi mu bàyyee wàcc si terrain bi loolu la ñu doog a indi Fra mais comme que Reug Reug bu ñu wootee si bagage dañ ko doon tegee côté ñun bii lañ nekk Baka la nekkoon capitaine jël ndef lañ jël CEDEAO jël drapeau chef de l'État Baka la bu Mbuur moo ko Fra daal na moom day déranger te waa Pikine loolu la ñu bañ a dégg en tout cas fii toolu maamam la. loolu la wax Ndiouga moo koy roose. waaye toolu maamam bi mu ñëw Pokola moo ko yan barrière ma ma sa toolu maam kay bu daw. toolu maamam daanoo ko fi te ngeen daanu ngeen. daanu ñu dañ fi daanu daanu daanu fii fi ñëw da daanu. waaw ah. ñu ñun du daanu mais dama na uuti beneen adversaire mbër yëpp dinañu lekk. waaw xale yi dinañ dem ci VIP mais réewante dina la xëy ñu bëri fii. mais est-ce que ay millions bu ñëwee wax ji duñ leen yóbbu baar ay millions bu ñëwee. man du ku ñuy yóbbu baar man dama am fu ma amoon seen teg. ah Pape Sarr du question damay ñëw rek dugg ci làmb man si père sax su may duggee car rapide sax du fay. ah man amuma benn benn millier sport bu may dugg di fay. parce que xam nga lu tax amul benn kër bu may ñëw ñu may gàtt Eumeu Sène xam na kuy Pape Sarr. Eumeu Sène man du arène nationale moo ma boole ak Eumeu Sène. waaw maa ngi Eumeu ba doomu Alioune Seye de la premier combat moom ma faal Seye combat Eumeu Sène yëpp dama ànd moom kon am na fu ma teg am na fu mu teg Pikine waaye dama ne la. waaw wax leen beneen adversaire bu ne Eumeu Sène. parce xam nga dama wax laaj la loolu Eumeu Sène dafa taxawoon mën a bëreet ak Balla Gaye 2 te actuellement nii am na luy xeeñ bu amee Eumeu mun na dajeeg Balla Gaye 2. waaw nag xeeñ mais en toogagul plateau Bécaye Mbaye saaga fa Reug Reug toog na plateau adduna bi yëpp di la mu tegal Mbaye Reug Reug jégalu na ko waaw jégalu mooy lan léen eh, xoolal sa waay bàyyi leen yooyu moom yaa gën a xam ne waaw am na yoo xamante ne tey su ma saaga woon waaw normalement boo ko génnee am ñu mu métti dañ ko dëgg waaw mais loolu mu ngi wër ci dëkk bi saaga nday la ko def Bécaye Mbaye wax na ko mais saaga wu leen yéen moom saaga wu leen ñu saaga ñu wax ko lu xasaw wax na xanaa bu ma saaga billaay wala dina loxo bi lay dugal delloo ko ci tuuru gaynde ah man bu ma saaga man waay bu ma saaga doo doo saaga man dama ne sa man moo may indi esat su gisee fii Franc ci wetam laay toog mais lu tax mu ne bu jàppee Eumeu Sène ci kaw dóor ci na ko rey na ko rey loolu loolu waxu wax yow moom waxul Eumeu Sène eh, mbëru Pikine yëpp la waaw waaw Pikine bëree sa waay wax day wax wax ju sol tubéy tey waxul day bëgg Eumeu Sène. mais man lu mu leen ñemee moo ma jaaxal lu leen Franc ñemee. mu ngi ñeme musibaam coolo coolo Pokola noq duma daw nga daw. mu ngi ñem Pokola maa ko rawale man. jox bi a dix la yor bu toj maa ko jox. fii de moom amagu fi defeen moom fii. dañ koo duma mu daw. Pokola barrière bopp mu daw ba pare ne toolu maamam. maa ko rawale man Pape Sarr du toog ko policier Franc mi ngi lay koy wax. aw ma wax. bu bàyyi naa tudd Firawuna ah.